Would you like to go out with you like to go ndax bëgg nga ñëw ñu ànd génn bu ñu la would like to ñu ànd génn man ak yow dégg nga go out mooy génn. Where do you want to go? Where do you want to go? Where do you want to go? fan nga bëgg dem. Where do you want to go fan nga bëgg a dem dégg nga what do you want nga bëgg def what do you want to lan nga bëgg a nga where do want to fan nga bëgg dem. I want to go to the restaurant. I want to go to the restaurant. dama bëgg a dem restaurant ba. I want to go to the mosque dama bëgg dem si jumaa je si jàkk I want to go there dama bëgg dem foofu I want to go alone dama bëgg dem man rek I am sorry I have a lot of things to do I'm sorry I have a lot of things to do am sorry I have lots thing to do maa ngi jégalu de li ma war a def daa bari ci anglais boobu nga wax dama am lu ma war a def lu bari danga naan I have lots thing to do I have lots thing to do lot of things to do li ma war a def moo bari. And me also in two hours I have a meeting. And me also in two hours I have a meeting. In me also in two hours I have a meeting. ay man mii itam man ñaari waxtu ci kanam rek dama am benn réunion also mooy ba tey in two hours mooy si ñaari waxtu yoo xam ne ñëwagul dégg buñ ne last two hours mooy ñaari waxtu yi passé buñ ne in two hours mooy ñaari waxtu yi topp ci jamono bi ñu nekk nga bàyyi si xel bu baax defoon nañ si vidéo ci in ak last maanaam ci ñëw ak jamono bi. I really like to go out, but I am not available. I really like to go out, but I really not available. bëgg naa loolu génn de waaye dëgg dëgg disponible disponible ma jàppandiwum pour dem léegi I am available mooy jàppandeeku ma dama jàpp maanaam am busy dama occupé I available nag mooy jàppandi I will grab you a sandwich on my way back dinaa la indaaleel bu may ñibbisi on my way back mooy sama yoonu ñibbisi maanaam I will buy something for you dinaa la jëndaale dara on my way back si sama yoonu ñibbisi lu tax leçon bi am solo nag dangay bàyyi xel baax ci méthode buñ koy defam That will be great because I am hungry. That will be great because I'm hungry. waaw loolu de moom dina normal loolu moom dina ma neex loolu dina baax de ndaxte dama xiif that will be nice loolu dina rafet he that will be difficult loolu dina jëfe de waaw. Or you can order pick Or you can order pick mën nga laaj mën nga demande pick up bu ñu ko waxee mooy lekk goo xam ne da nga ko jënd yóbbu ko ci kër ga maanaam lekkoo ko ci restaurant bi. That's a good idea so that we can eat together. That's good idea so that we can eat together. Wow, that's good idea so that we can eat together. loolu moom xelaat bu baax la de pourtant ndax ñu mën a àndandoor lekk maanaam ñu mën a lekk mën a géew ci même temps that's good idea mooy loolu xelaat bi rafet na de. so that we can eat together ndax ñu mën a lekk àndandoor mu nag yow maanaam ci même temps that's good idea hmm, xalaat boobu moom rafet na moom Moussa that's not a good idea Moussa xalaat boobu baaxul de you can eat in the restaurant if you want you can eat in a restaurant if you want gis nga moom bi moom laa indiwaat ci beneen anam ah waaw mën nga sax de lekkee ci restaurant bi boo bëggee mooy bu fekkee ne li nga demande nekkul pick up pick up dégg nga maanaam li ngay jënd si biir nga koy lekkee you can eat in restaurant if you want mën nga lekkee ci biir restaurant bi boo bëggee ok ah, you can go if you want mën nga dem boo bëggee. No, let me order pickup. They will deliver it immediately. No, let me order pickup. They They will deliver it immediately. déedéet xaaral rek ma demandé pick-up ndaxte ñoom dinañ ma ko livrer léegi léegi immédiatement léegi léegi. Ask somebody where is the nearest restaurant. Ask somebody where is the wala someone wala ask person mooy laajal benn nit yëpp wala ñett yooyu yëpp lu benn waaye daal lay tekk. ask somebody where is laajal kenn fan la restaurant bi gën a jege nekk bàyyi ci xel. There is a new restaurant nearby school. There is a new restaurant nearby school. There is a new restaurant ah, am na sax restaurant bu bees bu nekk bu dend ak école bi. There is a new restaurant nearby my house, nearby the street. ok nearby mooy am na restaurant bu bees boo xam ne moo ngi nekk ci dend ak école bi nearby the write this the nearest restaurant they will show you it. mu nekk lu am solo bu fekkee ne danga nekk ci àll wala nga sori. wala fi nga dëkk dëkku anglais la donc boo bëgg loo bëgg a bu la gën a jege baat bi ngay bind the nearest the nearest mooy bi gën a jege après nga bind no bi exemple bu ma bëgg wax wax ne extension bi gën a jege laa bëgg parce que sama essence dafa jeex damay bind the nearest gas station bu boobaa Google dina la ko indil bu fekkee da ngay xiif bëgg a lekk te xamoo fan la restaurant toll da ngay bind the nearest restaurant dégg nga da ngay bindee the nearest restaurant boo ko bindee dinañ la wan ban moo gën a jege dégg the nearest place. Okay, the nearest restaurant in my side. Okay. bàyyi xel bu baax the nearest restaurant in my side xam nga fee dama wax ne bindal lii rek léegi fii nag la la kii bindee lii dégg ñi bàyyi xel bu bindee. the nearest restaurant in my side mooy restaurant bu gën a jege ci sama côté bu fekkoon ne jàkka ju gën a jege la da nga naan the nearest mosque in my side wala dégg bu dee église the nearest church in my side dégg bu dee garage the nearest garage bu dee parking foo xam ne da nga fa war a gaare sa oto the nearest parking ngay wax dégg loo bëgg bind waa bi ci gën a jege the nearest ngay bind ci Google wala ci plateforme boo ko bëgg a recherche. did you see. léegi ñu xool did you see did you mooy ndax gis nga gannaaw bëgg nga bindee loolu ndax gis nga ay résultats ci loolu did you see ndax gis nga did you see ndax gis nga ñu xool ba xam. let me see the results. let me see the results. ah ok xaaral ma xool résultat yi nga xam ne la ma Google jox wala xaaral ma xool résultat yi ma plateforme bii moo bindee The Nearest Restaurant jox gis nga let me see mooy xaaral ma xool. Restaurant A is open, restaurant B is closed. léegi ñu xool fi tamit ba léegi am luñ fi luñ fi jàngat restaurant A is opened restaurant ñaari méthodes yi ni ma ko defee nii nga bàyyi ko xel exemple bu ne the restaurant A e maanaam restaurant numéro comme A ñu ne boobu ba ni open boo gisee baatu open mooy boobu ubbi na lu mu mën a nekk boo gisee ñu def open rek ubbi nañ na buñ ne nag. indiwaate beneen noo na la closed boobu tëj na. You can go to restaurant A. You can nga dem ci restaurant A maanaam lu mu si jublu mooy bi àndoon ak open bi mooy boo gisee résultat mu jox la bi. Because B is not available right now. because bi is not available right now ndaxte restaurant bi disponible léegi bu ñu ne is not available mooy loolu disponible man nga wax ne I am not available man disponible ma oh I will be available tomorrow suba dinaa disponible dégg suba dinaa disponible I will call you when I'm available when I am available dinaa la woo saa suma disponible ok. mooy when I have a free time wala when I am free ñaar yooyu nga bàyyi ko xel I have free time mooy am naa temps boo xam ne libre boo bëgg wax ne man libre na da nga naan I am free